استقل بشرعه بها يسعد الآوي إليه فيسعد Thiénaba bokk taxaw mbokk ngir dara Thiénaba TV du nga mën irsihi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, kon niñ leen ko defalee woon euh, defalee rek si yeneen kër xalifa yi macha allah ñu ngi jugee kër Serigne Abdou Karim Seck macha allah di xalifa Baye Mbaye Seck biñ ko jugee euh, ñëw fi nga xam ne mooy suñu kër macha allah Serigne Ndiaga Makhtar ànd koog magam macha allah fii si kër Serigne Baye Abdou Aziz. Seck macha allah di xalifa bu mag nekkoon fi macha allah mu seen waajur Euh, kon du ko defee rek kon euh, ni ko defee sànq rek dañuy dugg wan leen euh, ziyaaru taalibe yi wante wan leen xar taalibe yi nga xam ne jàkkaarloo nañu ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy waxtaan bi nga xam ne am na fii si kër gi su ko defee rek dañuy ànd ak suñu cameraman dugg si biir wan leen image bi. أحاسدهم إن عيشك أنكدو فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقاد به جيش ويعمر مسجد لها شرك منهما أشرفي مهند ورمح ديني وسهم مسدد اللهم صل على محمد سيد البشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسفي المصطفى في المغفره

هنيئا لنا منه يا سفاءة في غد هنيئا لنا منه سفاءة في غد ينال رضاها كل لعبد موقد علاقتين بيتان بأو أنت أمني جراي مناتم حا بجاي محمد إذا صفي المحبوب جاسم مبارجها صدقت رسول الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله alayhi wa sallam képp ku dégg bàq boobu di nga xam ne sa xel dina dem si borom àll ba ëllëwa allahu akbar mu ngi seddil mujahid maam ahmadou ndak kon niñ ko defee si kër xalifa yi macha allah ñu ngi fii si kër suñu baay Moussa Seck fekk fii njaboot gi macha allah rabbi eh, du ko defee rek eh, sëriñ bi moom la ñuy jox eh, kàddu gi mu waxtaan ak mbooloo mi waxtaan ak Thiénaba bi nga xam ni moom mooy war kër xalifa yi macha allah di taataan seen waxtaan si kàddu yi gàtt rek. du ko defee eh, xar kanam yi nga xam ne eh, ñëw nañ gis sëriñ bi sëriñ bi gis leen mu ñaanal leen lool rek eh, ku ne xam na ni lu rëy la ñaan gi ñu fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangu si dara jent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko defee rek ñu dékk leen waxtaan bi xam ne moom lay sëriñ bi di joxe fii ci kër gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu. di leen ziyaare di leen ñoo ngi leen di baalu àq leen di baalu di leen ziyaare di leen nangul ziyaar di leen di leen ndokkeel di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gii ñu génn muy guddik sayiduna muhammad muy guddik sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di leen ci jaajëfal bu baax di leen ci jaajëfal bu baax ci taxawaay bi ak pas-pas bi ci taxawaay bi ak pas-pas bi yal na yàlla fay leen yal fay ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke pàkk bi ci barke pàkk bi ñu nekk ci barke borom dëkk bi ci barke borom dëkk bi imaam Ahmadou Ndaak Seck imaam Ahmadou Ndaak Seck ci barke njabootam ci barke njabootam ci barke Baye Moussa ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mi jaajëfal bu baax nuyoo bi ñu ngi ciy jiital sëriñ Njaga Moxtaar nuyoo bi ñu ngi ciy jiital sëriñ Njaga Moxtaar rijaalullaahi rijaalullaahi ñu ngi koy sant di ko gërëm ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di jaajëfal ci taxawaayam ci ak ci pas-pasam ak ci pas-pasam ak ci liggéeyam ak ci liggéeyam te liggéey bi lépp liggéey bi lépp muy liggéeyu islaam muy liggéeyu islaam ak liggéey boo xam ne ak liggéey boo xam ne day jëme liggéeyu mag ñi ci kanam day jëme liggéeyu mag ñi ci kanam loolu rek mooy yitteem. nee na loolu rek mooy yitteem. ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax. la ciy jaajëfal bu baax nag. toujours damay wax ne. toujours damay wax ne. moom kàddoom. moom kàddoom. mooy sama kàddu. mooy kàddoom moom mii. ay jéegoom. ay jéegoom. mooy samay jéego. mooy samay jéego. bari na luy am. nee mooy teew. man maa ngi ca leneen. ku am ku la waxal. am ku la koo xamante ni mooy mooy di dem. mooy mooy moo demal say jéego. di def ay déplacement. di kooku da koy ñaanal. kooku da nga ñu lay ñaanal wér. ñu ngi ak fan wu gudd. nga lépp loo man rek. lépp li ci kanam. li ci kanam. yàlla na ko gën a man. yàlla na yi. yàlla yaak maa ngi leen koy ñaanal yëpp maa ngi ñu ngi ñaanal. nee ñu bi Thiénaba teg nuyoo bi. di ci loxo. ci loxol Serigne Alpha Sarr. mu tegal ma ko. mu tegal ko. ci équipe bi yëpp. ci équipe ah, moom gàcc ah, ngalaama. moom de. moom yu mel nii. bu amee fu mu àgg. bu amee fu mu loxoom mi ngi ci biir. loxoom ngi ci biir. jotaay yu mel nii. am na ci ñoo xam ne. am na ci suñ ko jotee. suñ ko jotee Thiénaba ak jàpp ndalam. ak moo nekk ci biir. ci biir. ku lay liggéeyal nag. di tasaare. sa liggéey. liggéey ba foo foogoon na du fa àgg. foo fay àgg. mu fay kooku war nga koo ñaanal. kon ñu ngi ñaanal Thiénaba TV. ñaanal Thiénaba TV. di ñaanal directeur bi. di ñaanal directeur bi. Eh, Serigne Alpha Sarr. Serigne yàlla dooli suturaam. yàlla dooli dooli ay xéewalam. yàlla dooli xéewalam. ak mboolem ñi nga xam ne. ak ñi nga ngi ciy liggéey. wasallam ci barke ma Ahmadou Ndaak na tere bi jëm ca kanam yàlla na jëm ca kanam yàlla jëm ca kanam taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal bu baax ci ni ngeen màggale guddi gi ànd ko ak ñun biig de ku ñëw fii fii ñu toog ba ca buntu kër ba ñëpp dafa fees dell ñëpp di taataan yiw awee ko ci yonente bi ñu defee ko nag ci anam goo xam ne anam gi borom dëkk bi taamu la muy tagg yonent bi di jàng ibnu maay noonu lañ ko doon màggal di julli ci yonent bi noonu lañ ko doon màggale góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi kon daal lii mooy li nga xam ne mooy cant yi may jiital fii ngeen ñëw nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax yéen waa ba TV lii du seen premier yoon daaw ñëw ngeen ànd ak ñun guddi gi tey it ñëw ngeen di taataan suñuy kàddu pour tasaare ko ci mbokki taalibe yi ak ci ak ñi nga xam ne nii ay ay ay ay ay cofeel lan ngeen ngeen taataan suñuy wax pour tasaare ko ci ñoom kon alhamdulilah rabbil alamin atti bii nag atub Baye Serigne Moussa Seck la Baye Moussa Seck Baye Serigne kenn la woon ci njabootu kër gi kenn la woon la woon. ci njabootug maam Momar Talla Seck. ci njabootu la woon. kenn la woon ci njabootug maam Ahmadou Ndak Seck. ci njabootug maam Ahmadou Ndak. kooku moom. kooku moom. ci ngeen ñëw ci këram. moom ngeen ñëw ci këram. Baye Serigne Moussa Seck moom. Baye Serigne Moussa Seck moom. kenn la woon ci nit yàlla yi. la woon ci nit yàlla yi tamit. ku nangu woon a sellal. ku nangu woon a sellal. ku nangu woon a jaamu yàlla. ku nangu woon a jaamu yàlla. ku nangu woon liggéey. ku nangu woon a liggéey. ku nangu woon a ak mbokk. ku nangu woon ba ba ba mbokkam yëpp. ba mbokkam yëpp. nungul ko loolu. nungul ko loolu. ba mbokkam mbokkam yëpp jox ko loxo jox ko loxo ba mbokkam yëpp nekk ay xaritam nekk ay xarit ngir nu mu bëggee woon mbokk ngir nu mu bëggee woon mbokk ngir nu mu woon a jaamoo yàlla ngir nu mu nangu woon a jaamoo ngir nu mu nangu woon a liggéeyee woon a liggéeyee kon moo taxoon kon moo taxoon mboolem ku mu bokkaloon maam Ahmadou Ndaak Seck bokkaloon da nga koo joxoon loxo da nga koo joxoon loxo xaritoo ak moom xaritoo ak am ci moom cofeel ba tey jii ba tey jii foo ne Baye Serigne Moussa Seck doon ci kon ci ku sant sek iskay la cay teg tegal la ca kaddu yoo xam ne ne kaddu yi kaddu yi kaddu yi njëkk la kaddu yi teraanga la loolu nag ku ko am waajur wu mel noonu ku ko am euh, ak ak ak kilifaam ak sellalam say mbokk ànd ak yow nungul la ko ah loolu kon dañ ciy sant yàlla loolu tam moo law rek ci njabootu maam Momar Talla ci njabootu maam maam Ahmadou Ndak maam maam Ahmadou Ndak Seck Baye Serigne Moussa Seck moomu mi ngi mi ngi dem mi ngi nekkoon cabe ci ndigal ndigalu Serigne Ibrahima Seck Serigne Ibrahima Seck moo bëggoon ku ko toogal cabe te mu jafe woon lool ndax ci jamono yooyu bari na ñu ko waxoon bu dëgg dee dëgg rek danoo arrière mu wax ko baay Serigne Moussa Seck mu ne ko su ma ci amee sa ndigal dem toogal la cabe mu ne ko yow de Serigne Moussa xamoon naa ne dooma gàcceel ci la dem toogal ko cabe liggéey fa liggéey bu rëy. ba ñëpp xam Thiénaba liggéey fa liggéey bu rëy bu ku néewuloon ci islam sax bari na ci ñum dugal ci islam ba ni ku néewuloon ci ku soppoon islam euh, mujj nga sopp ko ndax nim digaalee ak yow ci ci naxtaan la ci laamisoo ak yow ci nu bokk ak yow ndab li ci li mu am ci li mu ci mbaaxam ci mbaaxam ci mayam ci ba nga mujj sopp ko ba ko ba sopp li mu doon sopp li mu doon ba sopp li mu bëgg ba sopp li mu nekk muy islam bi ak tareexu a Seex Ahmad Tidiane Sëriñ ak liggéeyu ma Ahmadou Ndak Seck ak liggéeyu Baye Maam Momar Talla ba tax na tey ku ñëw gus tund gusaas xam nga xam ne foofa ña fa féete tëdduñu du nelaw liggéey nañ ndax tey jii de. ndax jii de. tund wa. foofa dem. ay turandoo ma fa turandoo Baye Moussa mi nga li ñuy wax toolu àllarbaat li ñuy wax toolu àllarbaat. da ko daa woote. daan woote. ndax moom. ndax moom. mbay la daa dunde mbay la daan dunde bu masaa bay ba pare. génne la cay asaka jox ko seeni boroom li ca des da koy bokk ak jullit yi dadaa bay ba pare di di di tibb di ko joxe pari saaku pari ñaari saaku ba mujj yàgg ku xamut da ngay téye loxoom waaye dane ndabul yàlla képp kuy njabootu képp koo xam ne njabootu Seydina Muhammad nga képp koo xam ne mbindeef nga ci ndabul teraanga loola ca nga bokkoon moo tax moom joxe da koo daf koo mënoon te alxuraan dafa wax ne booy joxe da ngay joxe li nga gën a bëgg waaye la nga xam ne dem nga ba bëggatoo ko di ko joxe taamu woon ko ci joxe moo tax moom da doon jël alalam. moo tax moom da doon jël alalam. di ko di ko di ko dépassé. ci yoon yàlla di ci dimbali ñi nga xamante ni soxla nañ ko. te lem lay dimbalee dafa bokk ci lam gën a bëgg. ah mu déggoon tam xadiisu rasulullah sallallahu alayhi mu déggoon tamit xadiisu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. bi bi mu ne man kaanu yuminu billahi. bi ne man kaanu yuminu billahi. wal yawmil axir. wal yawmil axir. fal yaqul xayran. xayran. aw li aw li yasmut. mu ne képp ko xam ne gëm nga yàlla. mu ne koo xam ne gëm nga yàlla. gëm rasulullahi. rasulullahi sooy wax. sooy wax del wax luy defar. del wax luy defar del wax aw yiw. del wax wala nga nopp wala nga nopp yow. fekkee boo waxee. wax lu ñaaw. wax lu ñaaw. moo tax Baye Moussa. moo tax ay waxam sax. ay waxam sax bëriwul woon bëriwul woon. ngir xam danse gi nekk ci làmmañ. danse bi nekk ci làmmañ. ndax wax. ndax yàq na lu bari. yàq na waaye wax it. defar na lu bari. kon moo tax wax buy defar. moo tax wax buy defar. ne ku ko xam. yonent mi waxal. ndax luy defar rek. loola day dëgëral islam. te day dëgëral ngor ak diine. waaye lépp luy yàq. baaxut ci islam. baaxut ci ngor ak diine. moo tax mu ne wax yiw. moo tax mu ne ku munta wax yiw noppil. noppil. alxuraan dane. waxtasimu. bi xablillahi. jamian wala tafarraqu loolu maam Ahmadou Ndaak da ko jàngale ba ñëpp xam ne jàngale la jàpp leen ci buumug yàlla gi mooy leen ci ndigalu suñu borom te bu leen tàggalikoo ngir ay caaxaan di ko wax te tàggalikoo ba ay caaxaan rek lal ko ak pexe yu bon maam Ahmadou Ndaak sek ba muy wuy ji suñu borom booba day dëgëral buumug yàlla gi dëgëral islam moo taxoon mu def déplacement boobu ba liggéey bu rey bi mu am ba indil ñu teraanga ji canaba kon kon kooku déggoon na moo bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon nag ñun. kon nag ñun suñu royuwaay. suñu royuwaay mooy maam Ahmadou Ndack Seck waaye suñu royuwaay. mooy Baye Moussa Seck. mooy Baye Moussa Seck ndax Baye Moussa Seck. Baye Moussa Seck dafa nuru maam Ahmadou Ndack. nuru moom. bay moom nuru Baye maam Momar Talla. nuru Baye moom. bay moom mu bari nag. mu bari garaat yu ko yàlla wékkoon garaat yu ko yàlla wékkoon. ku am bëtu leer. ku am nga bëtu leer. nungul nga ko loola nungul nga Baye Moussa wax naa léegi mbokkam yëpp ay xaritam la ndax ku bëgg ku baax bëgg lu baax te Baye Boussa ni mu baaxee woon noonu rek la amee woon mbokk yu baax moo tax ñëpp nu ngi loon ko cëral moom it mu wëlbati ko waat nungul ñëpp ay cëram kooku mooy mooy Baye Serigne Moussa Seck kooku mooy Baye Serigne Moussa Seck kon mbokki taalibe yi ñu ñaax leen ngeen gën a góorgóorlu ku defarul yaa yàq te defar moo gën yàq te defar gi mooy lii rek jàppoo nekk benn aljamaaxatu raxma mbooloo booy wër doole làmbatu ko ci mbooloo kon mbooloo mu bokk pas-pas te pas-pas ba di yàlla rek mbooloo mooma lu nu jéem fekk ci yërmande suñu borom kon maa ngi leen di gën a ñaax fekk na leen ci waaye ñoo ngi leen di gën a ñaax gannaaw ba ñu leen waxee góor waa góor. gannaaw bu ñu leen waxee waa góor ngeen gën a góorgóorlu ngeen a góorgóorlu xam kër gi. xam kër gi. canaba. canaba. amuñu lu ñuy jëggaani. amuñu lu ñuy jëggaani. bépp yiw. bépp yiw bépp teraanga. bépp xéwal mi ngi ci ëtt bii ku am lu baax. am lu baax xam ko. loola da nga ca jariñ ba jariñ ca ñeneen. jariñ ca ñeneen. kon kenn ku ne ëtt ba la yàlla booleel liggéeyal ci ëtt booba te yàlla tax ak sargal borom penc mi mooy maam Ahmadou Ndack Seck loola mooy ndam loola mooy ndam loola mooy gore ndax ñun war na noo gore lool ndax ba mu mittee moo ko dékku woon ba indil ñu teraanga ji buñ la la defalee teraanga ba mu ñëw ba tegal la ko sàmmal teraanga ja waaye amal kersa ba teraanga ja bu mu yàqoo ci yow ñun ñëpp danoo war a sargal maam Ahmadou Ndack Seye ñun ñëpp dañ ko war a amal kersa amal ko kersa nag mooy teg sa teg sa tànk ci dëgg amal kersa maam Ahmadou Ndack Seye mooy teg sa tànk ci dëgg Olof Njaay nee na lu du dëgg amul tànki kanam dëgg la ñu indil. dëgg la moo tax mu am tànki kanam moo tax mu am tànki kanam dëgg googu ñan nan ca ngoy. dundu gi dëgg. dund dëgg di gis dëgg. di gis dëgg di déglu dëgg. dëgg. li ci kanam lépp. li ci kanam lépp allahu. incha allahu yàlla dinañu yóbbu ci leer. yàlla dinañu yóbbu ci leer. te leer googu li ñu ci yóbbu. mooy dëgg gi nga xam ne. mooy dëgg nan ko. ngoy nan te topp ko topp ko. kon lii nee bokk na ci message bi ma leen di jox gannaaw ba ma leen xamalee kan mooy Baye Serigne Moussa Seck ganaaw ma wax leen ay qualité am yéen it ma leen di gën a soññiwaat ci li ngeen am ngeen gën koo jàpp ngeen gën koo jàpp gën koo suturaal gën koo kuróor ne kenn ku ne ne mel na ku téye am nen am nen boo ko téyee da lay wóor na bu la rëccee rek mën naa toj kon kenn ku ne na jàpp ne penc mii ñi koy defar ak ñi koy wormaal moom ci la bokk ku ko def di nga defaru ci biir dinga defaru ci biti innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna aqwaykum wa taqullaha lahallakum turhamuuna yàlla dafa wax ci alxuraan ni ñëpp de ay mbokk la mbokk nag la koy defar. mbokk nag la loolu ma alxuraan jàngal nañu ko. waaye ma mun naa gën ñu koo leeral. gën nañu koo leeral. mooy. mooy yéwénal diggante bi. yéwénal diggante bi ci wax. ak ci jëf. ak ci jëf waaye nag. ñu ragal yàlla. ndax ragal yàlla nag. mooy lépp lépp ci moom lay dellusiwaat. wax. wax. njariñ la ci ragal yàlla lay dellu jëf njariñ la ci ragal yàlla lay dellu nii ñu daje woon it di màggal guddik Seydunaa njariñ la ci ragal yàlla lay dellu kon lépp lu nit di def njariñ la ci ragal yàlla lay dellu ñu gën cee góor góorgóorlu bu baax fu ñuy teg fépp fu ñuy teg suñu tànk nan ko xam lépp lu ñuy wax nan ko xam lépp lu ñuy jëflante ak nit nan ko xam bëggee bëggee bum ñu yóbbu ci safaan bum ñu yóbbu ci safaan bëggee bëggee ñu yóbbu bum ñu luy tax mag ñi luy tax mag ñi jéppi ñu jéppi yéen ndaw ñi loolu maa ngi leen koy gën a maa ngi leen koy gën a maa ngi leen koy gën a dénk gën a dénk dee leen ko doxaale di ko tëddaale di ko toogaale di ko yeewuwaale ngeen gën a góor bu baax baax na wala. wax. kon ñu ngi leen di sant. ñu ngi leen di leen gërëm. jigéen ñi. ñi ngi leen di sant. di leen gërëm ci seen taxawaay. seen taxawaay Serigne Ndioga Makhtar. commencé woon naa ci yow. maa ngi mujjewaat ci yow. kontaan kontaan naa ci yow. sant naa la gërëm naa la ngir sa taxawaay bu rafet. kon mbokki jullit yi ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ah, du ko defee rek euh, dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ni yëkkati nañ ko fii si muy kàddu yu mucc ayib dégg ngeen tamit euh, ñaax nañ taalibe yi te wax si euh, Seydil Mujaahid macha allah wax si suñu sëriñ sëriñ Moussa Seck kàddu yu am solo yooyu du ko defee rek dañuy jox sëriñ bi mu ñaan lépp lu mu ñaan yàlla na ko seen borom nangu sa dara yéen sallallahu alayhi wa sallam ñu def fatiha falax rek naa auzu billahi mina sheytaan rajim la hawla wala quwata illa billah aliyil azim bisimilah lizi la yadru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima oxliq walxaatimi lima sabaqa nasiri ilxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim inna allah wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin Thiénaba TV sunu yëf kon ñoo koy bokk taxaw mbokk ngir dara Thiénaba TV du la bi ngir